ferrailleurs yi nekk ancienne piste bu Mermoz génnati nañu bile yoon nag di weddi xibaar yi di law ni nangu nañu jóge ci bile bërëb lu ni mel du dëgg ci seen i kàddu. mënuñoo investir fii des million ñu déparé cent francs bu am un million bu am dix millions bu am vingt millions investir ko fii nga ñëw nañu ñu dañu fiy jële dans vingt jours loolu c'est pas vrai te duñ ko nangu duñ ko nangu te jot demuñu fenn. ñu taxaw fas yéene wéyal seen xeex. mu di rek des si bile bërëb nga xam ne def nañ fi lu ëpp ñaar fukki at yemuñu foofee sax am nañu seen projet di sàkku rekk nguuru Sénégal jàppale leen si lu ni mel li ñu bëgg mooy soppi bile bërëb def ko ab cité de l'automobile te état bi na xam ne quatre vingt pour cent de la population sénégalaise ñoom dañuy xëy fori ay ginaar lañ ku ci ne dangay xëy fori la ngay joxe dépense boo ko amee wéef ko sa waa kër wala nga orange mu ne leen ko kon ñun amuñu salaire. kon jot na cité de l'automobile ñu taxawal ko fii ci ancien piste bi état bi ñëw morcelé leen ancien piste bi def ko ay garage moderne yile mécanicien seen gént mooy yëkkati si bile bërëb toll si juróom-ñetti hectare ay garage ki magasin yu méngoo ak jamono ñun am nañ xaalis am nañ des garanties il suffit ñu jox ñu suuf ñun ñu exploiter ko suñu bopp def ko ay garage moderne yoo xamante ne comme ni mu amee Cameroun amee ko Côte d'Ivoire am ko Maroc am ko Espagne am ko Amérique am ko Canada ñun loolu la ñuy rêver te il temps aussi l'État il est temps aussi ñu woo état bi ci boppam moom mu ñëw xam ne am na jeunes yoo xamante ne ils sont engagés pour le pays dooleel seen secteur moo leen tax a jóg loola tax ñu fas yéene soppi bile bërëb si fàttali nguuru Sénégal tabaxal na leen ab site de recasement sa jëm ñaa jow waaye mécanicien ferrailleur yu ancienne piste yi ba tey nanguwuñ faa taxu